di leen wóor ne tafaay bamba dooma xam baay ne moo namp ci meenam ba fer ba mat waay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jéem ñu tëj kër ga ca njaareem ne dund day jéem qabiltu dikran jaani min rabbi walil jinaani qaadani bil hubbi qabiltu dikran jaani min rabbi walil jinaani qaadani bil hubbi barakatul qur'aani xaalat bayni wa bayna kulli dararin wa xayni lam yanxuni maa yudxilu niiraana wala layaadun yujibu alqusraana tawfiiqu man laysa lahu kufan ahad li gayri nahwi daba kulla man jahad wajjahtu kulli lil ilaahi wa rasuul مع الكتاب ووجدت خير رسول ورج لخير جهة القهار صون هواه ليل أو نهار دم حياتي لحياة الله الله داخل جنان الله دم حياتي لحياة الله الله داخل جنان الله يقودني بالروح والجسمان إلى الجنان خالق الأدمان ترضي عن الأناء والغرور بقى واسمي من المغرور محى توجه السقاء محوى لي من عروض قاد لي والنحوى نهوي والعروض والبيان نهى بها لغيري العصيان هدم ربي بناء موتي وجهه لي العذاب بفوتي الله صان جسدي وروحي عن العداء وجاد بالتصريح لا شكور القلب من الأرض مع السماء نعم حبيب المرضي حبي له وللرسول والكتاب عدم عمري من أدم ومن عتاب محمد صلى عليه الله مسلما كشف لي علاه دلني الله على محمد وخادني محمد للسمد dallani allahu ala muhammadi wa xaadani muhammadun lissamadi dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun lissamadi lam yaxfa kawni qalilan xibaa lillahi wa rasul leen wóor ne tafaay bamba dooma xam ne moo namp ci meenam ba fer ba mat waay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jee ñu toj kër ga ca njaareem ne dund day jee